déclaration yoy dañuy dem seeti le ministre de l'intérieur intérieur. Hmm. jamono bobu Aly Ngouille Ndiaye moo fi ne. mu recevoir ñu malgré que. Hmm. agenda am xatoon ñu ko ci remercier. wa ñu né ko ñun dal suñu tank du dara. Hmm. amuñu pànk gu day nii ñew di la wax no wara défé defee sa liguey liggéey ñu ko gëna a xam fuuf. mais campagne bi mu ngi ubbi le 11 février 2019. maanaam démb. té déjà il y a deux morts parce que effectivement bobu les. Euh, les, milices privées mhm. du candidat du PUR, Issa Sall, avec les milices privées du candidat de Benno Bokk mhm. Macky Sall metti ñaari mhm. ba il jeune tailleur qui n'a même pas 30 ans il la ñàkkee bakkanam ma ko campagne bu ñaari fan bu ñu ba ca campagne ba muy mel ko rek ma fi indi màggaan naa yoo kayit gii photocopier ko indil la ko xëy na am nga ko sax waaye dana la faire gagner du temps moo gën ngay def ay recherche mu ne lii lan la ma ne ko kii c'est la loi bi fi euh, président de la république Léopold Sédar Senghor bindoon mm-hmm. jox ko assemblée ñu voté ko ndax booba mu ngi doon jël les devants par mm-hmm. rapport aux violences yi nga xam ne di dinañ koy ràññee ci campagne uh-huh. c'est la loi c'est la loi 78 40 du 6 juillet 1978 qui interdit formellement mm-hmm. Mm-hmm. toute constitution de milices privées dans des activités dans le cadre d'activités politiques. Mm-hmm. daa di wax que lepp lu aju ci wàllu kaaraange. yoon ñetti kuréel la ko jox ñom ñoo ci am sañ-sañ. muy police gendarmerie forces armées. waaye téréwul nak ku bëgg am sa sécurité am béréb boo xam ne da ko bëgg a aar wala yow sa wàllu bopp nga war a dem ci ay manifestation publique nga bëgg ku la aar mm-hmm. yoon nee na mën nañ la may nga am benn milice privée mais à condition nga bind lettre daal di sàkku une dérogation ma ne ko monsieur le ministre aucun des cinq candidats mm-hmm. yi nga xam ne ñu ngi ami armée de milice privée sàmmontewul ak loolu muy le candidat Macky Sall candidat Ousmane Sonko Idrissa Seck Madické Niang Issa Sall kenn ñoom ñëpp violé nañ affaire bi ku ci nekk ils ont des gardes armés ba pare di sol ay tenues paramilitaires alors mu ne ma da nga sàq ni suñu lanc ndax bi ngay dugg seetlu nga peut-être salle salle d'attente bi mm-hmm. Il y a de hauts gradés de la police de la gendarmerie kon yéen jam na da ngeen sàq ni suñu lanc ndax ci lii la ñu nekkoon ma ne kon alhamdulilah daal di ko tàggu pour jóg mu ne ma mm-hmm. déedéet dama bëgg nga toog nga xamné ne mala la wax je naa ko alors mhm. naka jekk ci saa la jël téléphone am mhm. le staff de campagne de Idriss Seck mhm. staff campagne du Sonko bu Madiké bu Issa Sall bu Macky Sall né len milice privée yi ñu bëgg mu dak daal di len rappeler les termes de la loi nee ku à partir de demain candidat bu né ñun ministère de l'intérieur dinañ la affecter un corps de lutte de 30 gendarmes mais à condition ni di ànd ak yéen mm-hmm. mën nañ continuer di ànd ak yéen mm-hmm. qu'il à condition qu'il soit désarmé te ni ñu ko simi seen tenue paramilitaire ndax yoon dafa tere alors kon lool la fa won mm-hmm. euh mais dès le lendemain ñu commencé ko jëfé mais comme ni nga ko xamé rek administration sénégalaise sen gomme, c'est le manque de suivi et effectivement nak le régime bi di changer rek yëf yi dal di nax saay moo gis nañ bërka demba lu ñaaw modi les hommes de Abbas Fall mhm. ont été attaqués. Il y a des blessés. Mhm. du dëgg du yoon. te mhm. bu ñu blessé. loxo c'est des armes blanches. le siège de Khalifa Sall. Khalifa a été incendié. te la ko taal cocktail molotov la. te xam ngeen incendie volontaire c'est criminalisé. voilà ku ci nekk tooñ nga. waaye kon ñu ngi rafetlu bataaxal bi euh, euh, nu mu tuddati. Euh, président kii Tine. Jean Baptiste Tine ministre de l'intérieur génne pour fateline ne. Mhm. fii ba période électorale bi di jeex ak nangami fan après. Mhm. tere nañu arme à feu tere nañu arme blanche. Mhm. tere nañu ay explosif té ñaari couleur yoy jote ñom ñep dañu jalgati sart yi. voilà kon buñu tayi di wax y'en ñun ak ñeneen. les lanceurs d'alerte. waaye tamit autorité, tamit nañu jëfé li texte wax parce que loi bobu mo wax. jarul di voté waat. amul benn loi bu ko abrogé kon nak nako yonne candidat yi ne leen na ngeen tënku ci lii ñi ànd ak yéen il faut les désarmer ñi ànd ak yéen bu ñu sol des tenues paramilitaires ku ko ciy jalkati nag yoon yoon euh, dal yoon dal sa kaw mm-hmm. exactement aca ñu euh, desandi ba tey ci euh, yile